أعوذ بالله الشميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله على نعمة الإسلام نعمته الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على سيد الوجود مولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى عصرهم إلى يوم الدين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu suñu site bi di Weer Wii TV ànd ko ak ñun ci tafsirul quranul karim ala sabilil muyassar li tulaabi wal muridina wal muslimin ñu ngi nekkoon ci suratu baqara ñu ngi doore ci alladina yuminuuna bil ان الذين كفروا الذين يؤمنون بالغيب آه، نيغي دا نيغي المفلحون صفاتي واخنا نيو لن نيغي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم borom bi subhaanahu wa mu ngi meral nag beneen kuréel bi nga xam ne maanaam ñooy safaanu kuréel boobu ñu leen tuddoon te mooy ahlul iman léegi tey aaya bi ahlul kufr la lay wax ak lan al kufr baatu kafara nag kalima bi du firi weddi waaye muuru lay firi ndax xol bu yiiroo ba dara dara dara dara mënu ko pénétrer loolu la ñu tudd al kufru ndax kafara mooy muuru na ki xolam muuru nag ba munul leer munul dugg ci moom kooku moom la ñuy wax al kaafir mooy ki nga xam ne nangulul yàlla santaaneem yi ginnaaw bi ko ruuxam nangoo ci aadamul arwaax inna allazina kafaru ay billahi inaadan wa jaahadu bi takzibi al quran fa haulaai yastawi indahum al inzaaru wa adamu ne gaa ñi nga xam ne kafaru billahi dañu weddi yàlla inaadan ci wan ko ginnaaw wa jaaharu ñu daw bi takzibin jëm ci kàcc alquranu alquran fa haulaai ñooñu day la yàlla wax ne yastawi dina yem adam indahum ci ñoom al inzaaru leen waa adamuhu ak ñàkk leen waar ñoom seen xol amul lumière xol nag bu fekkee dafa tëju maanaam leer lu ci dugg alquranu karim du ca dugg moo tax ñoom inzaaruhum waar leen wa adamu inzaarihim sawa moo tax da leen naan sawaun yem na a anzartahum soo leen waaree am lan dunzirhum ak nga ñàkk leen a waar yëpp waaw ndax lan ñoom kafara allahu ala qulubihim yàlla moo yiir seen xel ya xol ya ba ngëm yàlla mënu ca dugg xatama allahu ala qulubihim yàlla kaste seen xol ya ndax ida lam yantafaun bihi wala yatajahaluun ilayhi fala nataassar bihim ولا نعس عليهم فقلوبهم مغلقة لا يصل إليها النور سيل قول يدفع سكبة قول من لير من كايير نور الإلهي الممثل في الآيات تموي لير يالله بغا قمنا نيوكم ملل في آيات القرآن لا القرآن نور لير وكتاب المبين نيوم اسمعهم ديكتل لينكو دونكم نمغو مكو ndax ñoom du ñu nangu dëgg ndax lan xatama allahu ala qulubihim waaye yemu ca wa ala ak seen basira ya laa taraahu du ñu ko gis mug li an na alayha xijaaban am na kiiraay boo xam ne bu fatt moo dox seen diggante seen xol ya gis leer wala seen xol ya mos ko moo tax ñoom seen basira du nangu لا يعرفها صوت الحق دون يمك دون لانها تعرض عنهم ابصارهم مانام سين خولي مو غوند موتاخ القران واخ ني لا تعمل ابصار بدي دون غومبا بل تعمى الافئده التي في صدورهم maanaam xol bi nekk ci biir xol boobu mooy kumb ngi nettali jële ko ci benn muqassis muy Birkiis mu wax ne dafa am benn silmaxa boo xam ne mu ngi doon dox ci lëndam ndeysaan mu ngi gàddu benn torche am benn mandikat buy tërëf ñëw di daje ak moom ci yoon bi mu ñëwee mandikat bi xool ko daal ree ba kekku ne ah bët day dalooti na xaw ma nopp dalooti na ana silmaxa ak ko yor tos silmaxa bi ne tekk ba yàgg mu ne ko maanaam man dey fa ma jóge ba fii ma yegg si nii daluma ci benn pakk daluma ci benn xeer te sama dox bi jub na waaye boo gisee may yor tors day damay ragal borom basiira bu gumba bu mel ni yow dal ci sama kaw loolu moo waral may yor sama tors loolu liñ ciy dégg mooy kon ndekkete gis mom du ay beut mo koy def mais xol mo koy def kon nga gis ne ñom absaaruhum la tara sen xol yu duñu gis moy ala absarihim ghishawa yàlla ci def ben kiray mur ko ah kiray boba dafa tax hijab la bo xamne an ayati allah ba ayali yàlla duñ ko gis ulaika lahum azabun min nawin xassa dañu am benn jaggoo بولن يالا جاغلالي سي خيت مغل ليس ما خلوفا عذاب عظيم نيوم مانام دا نيو ام لم بو ري ري ري سي خيت مغل يالا يالا تيال موسو مننا يعلم نغا خمن ان الله وصف قلوب الكفار يالا ملالنا قلو يفري بأسرة أوصاف تي فكي ملوكات بالقدم تموي قدم الله على قلوبهم بالطبع تموي طبع على قلوبهم والضيق تموي قتل والمرض أكفر والرين والموت والقصارة والانصراف والحيمة والإنكار فهذه يفك مموي على الملل قلو جفري من قلوبهم منكرة وهم مستكبرون سن قليا دا في سيب دغ ها يالا وخات بنا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحيمه حيمه الجاهليه تا موي كي راي لو خامني لي دونو غيس مو دغ سما انصرفوا صرف الله قلوبهم كلمه صرفت نغا غيس كوم نيو دونك لولو مانام بو ديمي تيا بن بانك تي سورت نخل بن بانك سورت توبه yii daa ko fekk yàlla di melal maanaam fukk yooyu nga xam ne jullit yéefar xolam noonu lay doon bu dee alxasaaratu fa waylun lil xasiyatu qulubuhum bi zikrillahi ca suratu zumar daa ko fekk bu dee fil mawt aw man kaana mayitan fa ahyinaahu ca suratu an'am bu dee kalimatu rayn bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibuun ca suratul mutaffifin بودي المرض في قلوبهم مرض تسورة بقرة بودي الضيق ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا ملكانو يفر بودي كلمة تتبع فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تسورة المنافقون بودي الختم ختم الله على قلوبهم تسورة بقرة لي سن فك ملكان لا يقمن برمب سبحانه وتعالى مجي ولنه manam yi xetu fukki jangoro ñoom la yàlla def ci seen xol yi yàlla ci yàlla musal mu nag yàlla di wan nag maanaam melal beneen kuréel beneen kuréel bi yàlla di melal nag moom ñoom duñu bokkuñ ci almuminuuna way gëm bokkuñu ci alkuffaaru yéefar yi ñoom nag ñooy almunafiquun mooy naafiq yi naafiq nag alquran moo ko melal

waaye yàlla nee na ñooñu day gëmuñu moom na naas man yaqulu aman na ñu ngay wax ne gëm nañ wa maa hum bi muminina te gëmuñu lan moo tax fii xulubihim marad seen xol ya feebara ci ne feebaru lan feebaru nifaaq naa fekk la moom borom bi subhanahu wa taala melal na ko ci muzabzabina bayna zalika لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بني جسم نين صلى الله عليه وسلم وحني معنام من دفهم آيات أي علامات يوسف به melokaan yoo xam ne dañu koy melale naafeq mu ne ayatuhu salaasa ay alaamatuhu mandargaam yi ñett la mooy isa xadasa su waxtaanee rek kasaba fen wa isa waada su diggee axlafa wuute wa isa utumina soo ko wóoloo xaanam mu war la kii rek mooy naafeq kon alamat yaa ngoog ku ci am benn na dellu tuub ci yàlla te jéem a génn ci loolu ndax loolu alamatul munafiqin al nag mooy bañ na ko ba yàlla tànnal na leen saar tuddi ko suratul munafiq wax yonent bi sallallahu alayhi ñooñu bu ñu la dikkalee ñi walay wax ne ñoom gëm dëggal nañ ne yow yaay ndawul yàlla li yàlla xam na ne ñoom dañuy fen waaye yàlla moom xam na ne yow yaay ndawal iza jaaka al munafiquun yéefar yi buñ la dikkalee yow muhammad nashhadu ñu lay seede annaka la rasulullahi wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yaalamu inna al munafiqina la kadibin kon gis nga yàlla ngay xam ne ne nafiq yi ñoom la ñuy wax du dëgg ci ñoom waaye nag wax nañ kalimatu xaq moo tax ñaare léeg-léeg nga gis baat boo xam ne maanaam li mu porte mooy dëgg waaye ki ko taawu nag moom daf ko def rek lay te mooy la doomu baay yuusufa ya waxoon te mooy wax ne eh, wa ma shahidna illa bi ma alim na ñoom contexte bi mu gàddu ci ñoom bokkul ak maanaam nangu jubbu yàlla bu ko defee tabaarakallahu kon ñu yem ci fi eh, wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum bi muminun ñaan yàlla mu defal nu dégg ak topp ah, tabaarakallahu ci ndimbalu Seydina Omar ci seen site bi muy Weer Wii TV leeral ngi ñaan yàlla ñaan yàlla defal nu dégg ak topp yal na yàlla defal lu barka alquran wafaqana allahu ala taatihi bi rida seen mbokk Cheikh Tidiane Mbengue wasalaamu aleykum wa rahmatullah